bonjour asalaamaaleykum chers internautes yu Dakar People yi ñu ngi leen di nuyu di leen wax di leen ak jàmm seen chaîne Dakar People la TFM après Kouthia un célèbre oustaz testé positif il faut dire que le groupe Futur Média est la presse la plus touchée par le virus et particulièrement la TFM après la contamination du comédien Kouthia qui est actuellement sorti de réanimation c'est maintenant un célèbre oustaz qui vient d'être testé positif rapport une source un cas de plus qui risque de prolonger la chaîne de contamination dans la télé de You nekkoon nag ay xibaar yu yéeme yu garaaw parce que depuis contamination Kouthia bi Kouthia mën nañ ne wàll na ñu bëri comme jabaram ci la bokk wàll nañ tamit ay réalisateur ay caméraman yu nekk si aussi tey ñu jot say sources yu leer ni mujjee na dal benn oustaz boo xamante ne dafa célèbre mais on préfère garde le nom ba ci kanam ba xibaar yi gën a leer jërë ngeen jëf ñu ngeen di jox di daje ba beneen yoon fii seen chaîne Dakar People